ma ngi naan Ndongo Lo da doon wax naan dëkku bànneex boo gis yoon ba dafay tiisoo da koy ñemee soo demee ba waaw ba tey ñëwaat rek seeni fay ñëwaat rapidement mm-hmm. après xam naa nag fii la ñuy daanelee rek vraiment tamit euh, suñu ay kaddu mm-hmm. waaw kon tamit ñu ngi ci live en direct bi sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo waaw ñu ngi doon di wootee di woo fan si yëpp daal vraiment tamit ci bis maam Cheikh Niang bi di la 19 décembre fële ca Mbour xam naa nag Alassane nag lii nii mooy cëppaandaw émission bi parce que boobu rek tamit ndeysaan macha allah ñu ngi live affaire bi di dagg mais xam naa problème problème connexion la rek waaw ku ne xam na connexion Sénégal bi di ñaan yàlla nag un jour viendra ñu dema dem tamit comme tamit chental la ñu yor feew lépp waaw mais nag suñu ay propre moyens que affaire bi moom du ay mbiru xaare waaw nekk nekk ci rek loolu la amul xaare amul jàppale nu amul leneen bëgg ndongo TV international ay propre moyen lay demee yow gis nga fii gis nga affaire yi xamoon mu demee waaw di la jox kàddu gi tamit nga dugg nga dugg si wax ak waa àdduna tàggatoo ak wax ci wàllu biir yi ak waaw si la bëgg ndongo damay ñëw rek ci li nga wax sànq maanaam lépp loo gis rek ci benn li solo mooy gëm ak détermination na lu ndaw la njëkkee kon ñu ngi lay ñaanal nga xam ne maanaam très dëgg la maanaam lépp lu lëkkaloo lu waroon a suulu wala lu bi da génne kon télé bi ñu def lu ñu ñaanal ko suñu borom yokk ko mu nekk ay suñu naka maa waaw li may tëjee nag ci suñu soirée bi mooy le 19 décembre woote rek ndax tey jii Youssou Ndour bi nga xam ne tey. ku ne xamoo ko muy Sénégal sax bu tëgg day woote. Wally Seck bi nga xam ne tey ku ne xam na ko buy tëgg day woote. kon ñu tamit bu ñu tëgg dañuy woo fans yi di leen fàttali ne leen billets yi génn ñoo leen jël dindi billets yi ñoo leen jël jàppale seen doom seen rakk seen xarit loolu maam Cheikh Niang ñu ci woo bépp soppay Ndongo Lo ci woo groupe VIP bépp groupe VIP rek boo xam ne Ndongo Lo moo tax a jóg woon nañ la ci quoi di wax ni ñu parce que maam Cheikh kese di way rek amul sens bu sañoon fépp ñuy way dana gis groupe VIP dana gis groupe ndongolo yu muur dana gis bépp làng bu ñu làngal ndongolo rek duñ ko gis waaw ndaxte wax yàlla nag bépp groupe bu ñu làngal ndongolo wax dëgg fa yàlla bi su maam Cheikh nag dañ cee war a feeñ waaw ñu ngi ciy woo ñëpp di tàllal loxo mag ñu baax ñi ci réew mi di di jiital nag suñu mag yi bopp yi nga xam ne dañoo sës si ñun di ñu jàppale ñu leen ci dañ wax ne le 19 euh, décembre maanaam seen bis la billet yi gën na ngeen ñëw gën a ñëw leen ngeen jënd billet yi waaw waa Pikine dañoo waa Pikine aussi tamit di ñaanal waykat bi suñu borom defal ko jàmm waykat bi yal na ko yàlla defal jàmm may ko wér may ko teel ko baatam ba suñu borom lépp loo xam rek euh, parce que ñun ñu day liggéey rek sele day liggéey rek barki sëñ Touba ñun li nu war rek la def mooy kat maam Cheikh ay way la bëgg moom way rek lay def xam nga amuñu beneen métier maanaam loolu héritage la bu fi magam bàyyi te ku nekk nag sañ ngaa doon sa alalu mag moo tax mu doon alalu magam téye ko te képp ku yokk Ndongo Lo képp ku da nga ne da ngay yokk Ndongo Lo wala ngay bëgg baatu Ndongo Lo wala yëfi Ndongo Lo ba ñu suulu waaw nag ñëw nga suxat garab gaa ngi nii. dëgg la garab gaa ngi nii bu fekkee da nga ne da ngay bañ yëfi Ndongo dee même kër googu mënti langal. wala kër gu ko mënti ubbil di ci wax wala nga ciy jëf dafa am fu mu safee garab gaa ngi nii ñëwal nga sotti ci ndox mu dem li ngi ñaanal ñëpp jàmm di siyaar di nuyu nag di nuyu nag sama benn jigéen bu dëkk Mbour muy Adama Pël Pël bu rafet dëgg la kooku nee na dinaa jënd bala ko biyee may ko waa Mbour ñëw king waaw ku ko xam-xam ne ndongo loolu bëgg ci xolam maa ngi siyaar ñëpp ci la di la sant di gërëm daa jëf mais tamit bari mën nga jox sa ay numéro parce que tamit tey tey ku ñëwoon tay bëgg bu maam Cheikh ñaar Europe mba feneen ak fenen bëgg contacter ménager am comme yow yaay ménager am yaay le grand ménager di ménager maam Cheikh muy sa artiste mu ngi joxe sa ay numéro ku la bëgg contacter wal tamit ku bëgg maam Cheikh tegal ko waaw kon nak euh, ni ñu ko defee sank rek sama numéro 77 la 77 017 017 60 58 60 58 waaw képp ku soxla mam Cheikh waxat ko ma la rek 77 77 017 017 60 60 58 58 képp ku soxla mam Cheikh ñang so wote ci numéro bobu di nga jot maam Cheikh Niang lépp loo bëgg a defal la ko incha allah rabbi dañ la ko defal bu soobee yàlla suñu borom. waaw kon que loolu leer na. mu nekkoon euh, ménagère de maam Cheikh Niang tey ñu invité ko fii ci émission Ndongo Lo Ba Faw. émission Ndongo Lo Ba Faw nag fi invité kenn te laaj ma noo gisee émission waaw Sélé. li ñu naan ku yokkul yaa wàññi parce que ku ne bëriwul fii moyens amul. maanaam olof nee na ku yokkul yaa wàññi. te wax dëgg fa yàlla bi bi ñu xamee télé ba tey maanaam lépp lu ñu réeroon si Ndongo dañ koy gis di ko dégg quoi maanaam fekkoon drapeau Ndongo Lo dafa sëngem yaa ngi koy jéem a yëkkati te incha allah bi képp kuy xëy di góorgóorlu heure bu yàlla xëyee wane ci exemple te li mu wax rek jàppal te bul bàyyi àddinaa ngi lay déglu àddinaa ngi lay seetaan waaw ndax ki yor dara di góorgóorlu lii ma fekk la ni ngay góor góorgóorlu barki Seydina Muhammad bu la yàlla mayee leneen lu dul lii Sénégal gis dégg gis dëgg dégg dëgg. dëgg la parce que li nga def làmbatu woo ko. triché ko li nga def ci xol nga koy defee et puis da nga xam li ngay def. jàmm lañ dee ñaanal. dëgg la jaajëf. waaye yéen ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax mu nekkoon Sene Faye fii ci émission Ndongo ba faw Alassane nag ñu nekk tàggatoo ñu war a jeexale fii tàggatoo fii ba tamit incha allah beneen tamit émission xam naa nag tey moom concept émission bi

maanaam xam nga polyvalent dëgg parce que dafa mbapat dëgg la âge bi xale la mais dafa am fu mu jaar ci ay way tarbiyu woy ba pare fekk fi way ba pare namp ay way dëgg la na ko ñëpp na ko nit waa Sénégal xaar ci bépp muy ci préparation album te incha allah bientôt incha allah rabbi dañ leen wan lu bees tàq loo xam ne wallaahi azim di ngeen yéemu ci yàlla waaw di ñaan nag yàlla bu ñu tet jiitu amiin bu ñu ci dara ñu ngi koy ñaan yàlla di ko ñaan sangam ba Serigne Saliou Mbacké yàlla ko Serigne Saliou téel boppam ko amiin yàlla bu ñu tet jiitu ci dara na ñu ñaanal ay gore la dañoo nekk ci yoon di liggéey mënoon nañoo tux wala ñuy sàcc wala ñuy agressé defuñu ko dañoo ñëw di góor góorlu di bëgg li fi nangu suuxat bàyyi ko fi mu bañ di dee dëgg la képp a tax ñu ñëw di góorgóorlu kon nag dañ nit ñi ñaan jàmm maanaam ñaanal ko waykat bi suñu borom defal ko jàmm ñaanal ko ñun ñi nga xam dañu ànd ak waykat bi di góorgóor suñu borom defal ñu jàmm di ko ñaanal bépp staff boo xam ne yaa ngi ci ginnaaw maam Cheikh di liggéey ay euh, ay nongolo ah, nga xam ne ay ñoom ay ay ay ñoom waaw gars yi nga xam ne ñoo nekk ci di liggéey bëgg ñu dul ndamu maam Cheikh xam nga ñu leen di ñaanal jàmm di leen wax ni xaw xam nga nii rek la waaw xàccandoo rek dóorandoo parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ay way boolewul ñi nga ñu ñoon di ànd ñëpp ay woy boole wuñu moo tax suñu ànd bi barki Serigne Fallou Mbacke yàlla ko yàlla suñu borom teel boppam jaajëf mais tamit le 19 décembre ku ñëw ba King Sali tamit King Sali exact boîte bi fa la nekkee ci ci ci maanaam Sali boo ñëwee ba boo ñëwee ba croisement Sali croisement Sali oui station bi croisement Sali station bi waaw am na ay clando yoo xam ne mhm. taxi yaa nga fa taxaw bu mhm. fekkee clando la boo fay 100 francs dëgg la da la yóbbu ba foofu ba ci buntu boîte bi ba ci buntu boîte bi waaw fekkee da ngaa jël taxi bi da la yóbbu ba ci buntu boîte parce que boîte bi ci kaw tali bi la nekk dëgg la ak croisement sari sorante woo dëgg la waaw maanaam ku ñëw ba croisement sari boo fayee 100 francs da la yóbbu ba ci sama numéro 77 60 60 58 58 incha allah dina jadi jaajëf waaw ku ñëw ba foofu soo ma wooyee xam nga dinañ la orienté boole laa ku la jëli xam ba ci boîte bi kenn du sonn kenn du wéer li ñu ko defoon bee passé rek euh, am na ci ñoo xam ne dañoo jógoon ba Touba ñu jógee Mbacke dañoo utoon kër goo xam ne dañ faa dal ba soirée bi ñu xama dox nak ñëw fecci xama dund ndongoloo ba seen xoccat dañu demaat ñibbi noonu lañ ko bëgg defee incha allah rabbi waaw loolu moom waaw li nga wax ni dafa nice naa ko trop mm. parce que tamit ku ne xam ne yow doo nitu média macha allah le 16 janvier yàgg naa jot ñu bisu Ndongo Lo caméra yi ñëpp ñëw nga ne ma seen bëgg waxal yow sax ay wax da nga koy daw mais tey damaa wañ sa loxo forcé la par la force teel a si studio ba heure bii nii maam si wax ci Ndongo Lo dina xam ne yow sax ay affaire de caméra wala wax intéressé la yow liggéey moo la gën a intéressé loolu moom problème dama la liggéey moo la gën a intéressé gis naa ni à chaque fois a si wala bëgg wax si affaire mbiru noonu lii sax tout temps si ginnaaw ngay féetal bi di gën a nekk liggéey bi daal moo la gën a amal impact yow mën a jaajëfal bu baax a baax a baax waaw ni nga disponible wax dëgg yàlla mooy loolu noonu ba tey ba ma waxee rek da daal ñëw teew jóge Pikine ñëw teew xam ba pare boobu ba tey ba heure nii nii parce que il est 18 heures et quelque disponible euh, ànd ak disponible euh, comment dire ànd ak euh, disponible. waaw loolu. dama la si jaajëfal bu baax baax a baax daal. am na solo trop trop trop dina jaajëfal dina jaajëfal dina jaajëfal. dina wax tamit seen émission nooloo ba faw. à l'instant nii fii la ñuy jeexal ne mais yow tamit am nga dernier kàddu nga joxe sa dernier mot rek. waaw man dama jox sama dernier mot. après ñëw jox leen maam man woote rek. ok sama dernier mot woote rek. Mhm, parce que ku dégmal bés ku ne. Mhm. woote ngay saxoo. Mhm. fant yi nañ mobiliser wu ñëw. ndax euh, maanaam ñun amuñu lu du fant yi bu doon fant yi ñu dem seeti leneen ku ci nekk jàng naa sa métier ba mu mokk maam Cheikh visa am am na ay tampon kon ne xam dem toog mais fant yi ci boppam ñoo ñu bàyyi fii barki Seydina Muhammad kon di leen woo le 19 di leen ñaanal jàmm suñu borom fépp fu fant doogo nekk yanal yaa defal jàmm ba le 19 nga ñëw ci jàmm ci jàmm loolu mooy sama day na moo maa ngi nuyu ñëpp dina siyaar waaw kon xam naa dañuy jox ñi ñuy seetaan son maam Cheikh ñëpp après ñu tàggatoo kon gars yi jaajëf rek ba le baaw su lay ak may day yaram day yiir waa na baay Mbàkke. baaw su doomu yaay yu bëri doomu yaay aram jóob mami maa la ti boolu ma si boobe gar ko léegi nga sëlee waaw waaw l'héritage global l'héritage demoo atali di taxawaalu ba say tànk bët teel a xëy ku dee wàcc ngir say waajur eey mami ba na notte danaan tuuta borso tuuta biyaa woo bu fekkee way ngay way ngay siiwul dëgg la yàlla na yàlla defal dëgg la bu dee lu koy siiwul si leneen yàlla na yàlla defal jàmm yaa iraq Suleyman parce que képp koo xam ne rek da ngaa ñëw Suley nga bokkal ne ak baay da nga da nga da nga jàpp ami yaram Suley yéena Suley maanaam dafato Suley Suley yaram tey maanaam moo yéen a jàppale dëgg la képp koo xam ne da nga rëy nangu la di waykat nekk Sénégal maam sa ñaa ngay jàppale jàmm yàlla sa xëy na rafet ñu bàyyi ko Seydina Omar pour gars yi. su lay su la ma mi tooñatee nañ fay lamp yi fay leen lamp jaajëf.